du Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Sonko borom soppi système mujj naa soppi système am ubbi l'observateur njiital parti Pastef gi ne woon du wuy ji juge d'instruction bu huitième cabinet bi ko convoqué woon tey ji wax na démb ne dana wuy ji finalement yéen bi nañu ab déclaration la def démb ci guddi fa la waxee ne dina wuy ji fa waxee li tax mu nar a wuy ji nee na ay avocat ñoo ko ne mu dem wuy jéeg mu bañ a dem wuy ji résultat bi benn lay doon te it mënuñoo taxaw naan ñoo ngi koy ñàkkante ak police bu lëmm wala gendarmerie bu lëmm ba l'armée bu lëmm Ousmane Sonko ci ne wuy ji juge bi tekkiwul ne dañoo dellu gannaaw baa bokke xeex xeex bi dafa jeex xeex bi tàmbaleegul sax mu ne xeex la bopp lu ne mën nañ ko caa ñàkk waaye Macky Sall moom it mën na caa doxee ñàkk nguuram gi Ousmane Sonko mu ne su boole kook sedd guy moom la ñu gis démb muy wax li ko ay wax ba tax mu nangoo dem wuy ji bi journal bi di Source A wax nañu ko député yee ci assemblée nationale te fare ci kujje politique gi ak ña ca languk non inscrit toll ci fukki député ak juróom-ñaar yéenekaay bi nee nañu saisir nañu conseil constitutionnel ngir ñu annuler levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ndax nee nañu ni ñu ko defee jaarul ci yoon yéenekaay bi dolli ñu ci ne kii di Ousmane Sonko benn tànkam ma ca cité kër góor gi beneen tànkam bi ci des ma nga ca kasu bu rëbës Sud Quotidien nañu Ousmane Sonko dana jano les économies ndax yàlla di bañ mu dal ko dem di ko jëli ba far fa génnee ab néew Vox Populi nañu doxin wu ñàkk Pastef gi njiital Pastef gi doxe ne duma dem ba mu yàgg mu ne dinaa dem leeral na démb li ko tax a nangoo dem nee na ay kilifa diine ay avocat ñu fare ci société civile gi ba ci waa ak waa këram di ay mbokki boppam ñoo ko ne ne dem wuy ji justice bi le témoigné nañu nee na ab sëriñam moo ko jox ndigalal wuy ji ay awakaam xelal ko mu dem wuy ji ay kilifa yu fare ci société civile géeg ci opposition bi ñaax ko ngir mu dem wuy ji latir bi nañu jël na dogalub dem wuy ji zis bi waaye bu ñu moytuwul dana toog ca bureau zis ba ba jóg du fa ne mbuu baa mu ne fa mbaa libération mel ne ku naan ak lu ci mën di xew àllarbay tey ji àllarba la ju nar a bari jalti-jalti ndax muy son Sonko di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ba coow la amee woon ñoom ñaar ñëpp war nañoo janoo ak zis tey ji Ousmane Sonko ci xët mu di xaati goñne li xew yëpp complot bu ñu def te Macky nekk ci ginnaaw saka nocc ngir bëgg koo sànk te jubluwu ci dara lu dul bëgg rajo turu Ousmane Sonko bi waral coow li ba léegi ñoo ngi koy soog a gis ci géew politique bi Moussa Sow coordonnateur COJER ne Macky Sall xamul Adji Sarr ci aadama xamu ko ci awa bu dee am na ko xam aji saar ba ñëpp xam ko moom Ousmane Sonko la moom Ousmane Sonko moom la ñuy tuumaal ne moo xam Adji Sarr biir ak biti. tribunal euh, war a wuy ji ak wooteeg juge d'instruction moom lii leader bu Pastef euh, li nga xamante ni moom lañ koy toppee rek euh, di wàllu ko tuuma diggam ak soxna Adji Sarr. Euh, lu jëm ci wàllu délit beneen nag bu mu njort ne moom la ñu koy waajal ci gis-gisam ginnaaw déclaration démb mooy bu weesoo loolee dañ ko bëgg a tegal beneen ko tuuma euh, di ak wootee ngir ak fippu ci réew mi loolu kon euh, la njort moo ki avocat am waral ñu taxaw ngir fagaru ci mbiri Ousmane Sonko aji saa fukk ak juróom-ñaar ci soxnay Pastef dañ leen caa teg loxo bu baag léegi Seydi Gassama njiital Amnesty rafetlu wu ko benn yoon di sàkku ñu baleen na mu gën a gaawe rawatina bi xamante ni yenn ci yooyu soxna euh, seen yaram ak tolluwaay mayu leen euh, lii di euh, condition yu bon yanu nekke wàllu xibaar bokk na ci yëkkati immunité parlementaire Ousmane Sonko foofe it am nay député fukk ak juróom-ñeent ci ñoom yu opposition bu Sénégal yuy wéy di kalaame ci kanamu yoon conseil constitutionnel dañoo gis ne yoon wanu jaar ngi yëkki kiiraayu Ousmane Sonko ay rëq-rëq yu bari da ca am di vice leneen ci wàllu xibaar di campagne geeg ñakke gi ñeel jàngoro coronavirus talaata alarba tey ji ngeen baal ma tey dinañ jot yeneen i ñàkk maanaam ñetti euh, téeméeri junneeg ñaar fukk ak ñeent dose vaccin britannique bi di AstraZeneca ci technique bi Abdoulaye Diop. cité kër góor gi la ñuy wutali kër président Ousmane Sonko bu Pastef ak Salif Sow maa ngi lay nuyu Salif. di la fay eh, lan lañ mën a euh, daal di kon jàpp foofa ne xibaar. tekk tekkaaral alaaji Assane ku ne di dox say eh, yitte waaye jàpp leen ne du ne yitte ni ko bëgg a daal nga koy doxee bu fekkente ni dëkkoo fi moom doo fi sax romb di fi xand ba police yi ñooy baare li nga xamante ni moom mooy yoon yi ñëw jubal si kër Ousmane Sonko baare woon nañ ko sax waaye dafa mel ni dañ gën a yokku fi ñu toll nii ci bunt kër gi oto yi nag ñu ngi ran toll ci ñeenti ba ci oto Ousmane Sonko bi ñu koy faree di gis guddi yi mu koy camionnette ak euh, beneen woto boo xamante ni ñoom seen lim foofu takku na mën nañ fa daanaka fanweer léegi-léegi ñu romb xool gaa yi rombaat dem dikk alaaji Asan loolu daal Euh, lañ seetloo ni fii ci cité kër góor gi euh, xale yi tamit sax gis naa ñu óodoo seen i saak di dem l'école hmm. euh, nit ñi tamit ñu war a xëy dëkkee fii ci gox bi tamit xëy dox seen i soxla waaye wàllum kaaraange gi bu weesoo barrière yi ñu seetlu fii rëy na dem na ba ci corniche ouest ba dem na aussi ba ci route de Wakam ak bépp yoon woo xamante ni rek daanaka jubal si ni fii seetlu nañ fa ne gendarmerie tamit ñu ngi fa ci lim bu takku gendarmerie ak police alaaji asan fii ci lim bu takku Ousmane Sonko nag waxoon na waaye ba fii nii mbooloo moom daanaka bëriwut fii weesoo ñu yore kaaraangeem ak protocole am ñu ko jege dëgg-dëgg du fi gis keneen. jërëjëf Salif kon euh, incha allah dinañ wéy di ànd ak yow euh, di topp kon boobu tolluwaay euh, kër man Sonko ak la fay ruuse ne xibaar ba ni mu war wuy jee ci kanam tuuti ci pàttali ci tribunal bu 9h tribunal googee Abdou Diouf junior a fa toogal RFM jamono yi ab Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laaj. yow it euh, laaj benn bi dañ ko mën a jàpp ni xibaar ci wàllu kaaraange naka noonu it euh, du ñàkk xëy na xëy na ay militant yu Pastef. loolu nga mujjee fa lay njëkkee ndax amul kenn koo xam ne fii am nga maqaama jege fi moo xam militant nga moo xam leneen nga loo xam ne euh, amul benn rapport ak liggéey bi ñuy liggéey fii ci tribunal bi mënoo fi jege ndax soo jógee biir Medina di ñëw. am na mbedd moo xam ne moom koy njëkk a jot laata ngay euh, jot euh, fi nga xam ne moom moo di tribunal bi foofu dañ koo ndar képp am kenn amatul droit jaar fa am na itam mbedd moo xam ne boo jógee ca rëbës ji di ñëw euh, foofu nga xam ne mooy euh, ci virage bi foofu yëpp dañ ko ndar képp euh, amul kenn koo xam ne moom si jaaree muy wetu corniche bi itam foofu itam dañ ko ndar képp ak euh, soo jógee ville jógee côté Sandaga mbedd moom nga xam ne dafa def mbartal rek waa ci jubali bi fi nga xam ne moom moo di ci tribunal bi foofu itam dañu ko ndar képp nga jógee itam beneen wet ga fi corniche bi yam noonee booy jëm biir ville. foofu itam ci wetu ministère de la jeunesse yaakaar na moom moo fa nekk foofu itam dañ koo nar kepp amul kenn koo xam ne mën nga fa jaaree su ku ni da nga am euh, daal loo xam ne lu mën a ñàkk la fii ci tribunal bi am na fi ñax ñoo xam ne may nañ leen ñu ñëw rang rang du sax euh, ay góor ak i jigéen góor ñi ràññee nii jigéen ñi ràññee la léegi mooy ñi nga xam ne dañoo am urgence yi ci biir euh, tribunal bi bu ko weesoo nag jàppaleen ni euh, police moom dispositif bu impressionnant ñoom ñu lañ fi indi fii fi ñu dar kepp noonu yëpp ay nit yu bëri ñoom ñoo fa taxaw ay éléments yu bëri ci biir nag gendarmerie ñoom tamit ñoo ko fees dell bu la ci biir li nga xam ne moom moo di tribunal bi taskatu xibaar yi nag tey moom seen bambamaase na ndax may nañu leen sax Euh, taxaw fi nga xam ne moom moo di parking bi jàkkaarlook euh, euh, tribinal bi daal di def seen liggéey te jortoon nañ ne ci fan yële ñu génn amuñu woon possibilité boobu kon tey loolu mooy li nga xam ne moom moo fi xewagum di xaar xaalis rek joxe sauveur bi soog ko génn jubal si fii ñun tamit ñu jéem a xool ba xam ndax nañu xam fan lay duggee am ab déet. incha Abdou Diouf Junior ñu koy gërëm Ousmane Sonko kon ni nu ko waxee ci kanam tuuti 9h la ñu koy xaar tribunal am Dakar ci woote bu juge d'instruction euh, moom démb ci déclaration beneen président bu Pastef euh, xamle ni euh, lii di ak wuy ji mu nangu ko du ak wax waxeet wax na fa mu ko wéer wax it la mu njort nekk tuuma geneen gu waa ji gars yi di ko waajal mu ne ci teg ci ndoddam muy ak woote ci fippu appel à l'insurrection leeral ci déclaration beneen bu Ousmane Sonko biik ak Pape Balla gannaaw ay waxtaan ak i njekk usmaan Sonko dana daal di wuy ji wooteeg juge huitième cabinet instruction bi waaye nag muy xam ne ne mbir yi du seddee noonu. ca waxtu bi ñu ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge huitième cabinet war a wax ak nun waaye loolu tekkiwul ni dañoo deltu gannaaw. xeex bi commencé gul sax te te tekkiwul it ni mobilisation bi bi exceptionnelle bi nga xam ne am na Sénégal te ñu gëjoon ko gis dina wàññeeku tey la mobilisation war a gën a bëri tey la mobilisation war a gën a am doole tey la militants yi ak militantes yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñépp dëgg rek moo leen ñor tey ñu war a gën a mobiliser parce que bu ñu buggee jaarale mbir mi feneen dina am neneen lu muy demee. jiital parti Pastef nag muy ñaawlu ndigg sërëx yu bari yoo xamante ne kilifay réew mi nas nañu ko ngir daal di fexe yàq deram waaye tamit bañ mu bokk ci élection présidentielle yi ñu dëgmal. xam nañu ni seen dossier bi du sotti. lañ ca jublu mooy wëlbatikuwaat gannaaw luy xew ci fan yii. Euh, juge huitième cabinet. bu dee la ñu bëgg a def sotti na. te ñu am ci la ñu bëgg ñu gaawantu yokk ci bii ne ex bu ñu doon wër moom la ndax moo woo xale yi leen jënd leen. kon ñëpp nañu xam ni seen pexe yemul ci benn pexe yi dañ ko lal beneen ñetteel bi ñu doon waajal mooy suñu nee Ousmane Sonko neen du dem ñu indi fi GIGN wala BIP fexe ba jaxase affaire yi bu ñu génnee nag ne dafa doon résister moo tax dañ ko yokkal délit rébellion jugé ko flagrant yi dem tëj ko te toujours ci gis-gisu avocat mooy dem ak ñàkk a dem benn résultat bi la kon pour bañ leen may porox ndoll yooyu nga xam ne mun nañ ci jaar pour génne leneen loo xam ne loolu day yomb ci ñoom ni dossier bi jafe ci ñoom moo tax avocat yooyu ñaan ñu insister joxe seen conseil ñu déglu leen. Ousmane Sonko jamono ji nag muy xam ne ne du nangu benn yoon ñu daal di koy xoqatal ba tax na muy ñaax mi militangam yi ngir ñu daal di gën a farlu waajal mobilisation boo xam ne bu mucc ayib lay doon. jërëjëf euh, Pape Balla euh, kuréel gii di jàmmi réew mi plateforme la bu société civile bu Sénégal la nu bëgg ci yoon mooy mu tëddee njaaxaanaay ci mim mbir Ousmane Sonko Adji Sarr Cheikh Oumar Sy ak ñamu ci àndal ci googeeg mbootaay euh, di fàttali démb ak bërki démb ci seen gis-gis ñu ne ba fii justice bi nu fi gis mooy bu nu instrumentalisé def na xuusmaa ñàpp daal dinañ joxe nay misaal mbiri xalifa Sall ak Karim Wade Cheikh Oumar Sy ñu teew kook Salif Sow li ñuy ko ci transparence ak impartialité lu tax ñuy wax loolu parce le passé gis nañu tey ay fait yoo xam ne wane na ne euh, dañu jël ay candidats yoo xam ne tey bëggoon nañu bokk ci ay élections ñu écarté leen. kan gis nañu Karim Wade Karim Wade jóge nañ dindi nañ ko fii Khalifa Sall dindi nañ ko fii loolu yëpp ci ay compétition la. tey Ousmane Sonko wane na tamit ne bokk na ci kuréelu ñi nga xam ne tey politiciens yi laaj réew mi. wane na tamit ci élection yi ne am na ay ndaw yu ko topp ak ñeneen ñu ko topp di ànd si seen projet ñoom. Mm. loolu tamit warul war a mën a fexe ba ñeneen ñi sàqal ko pexe ne ne dañ ko bëgg a écarter démocratie dafa war a doxal boppam ñun nag li ñuy ñan mooy état bi na ci génnee loxoom ba mu set wicc justice bi na def liggéeyam ba mu leer nañ ñu xam lan moo xew bu Ousmane tooñ euh, honorable Ousmane Sonko tooñul nañ ko bàyyi mu dem yoonam parce que tamit mënuñu seetaan rek état di instrumentaliser justice loolu la ñuy gën a. Euh, kon da gëm ne complot la ndax instrumentalisation justice. bi kenn ko déggee rek complot kon na ca. xam nga non man waxuma complot dama ne. Hmm. dama ne. Hmm. bu nekkee ne tey dañu war a dem ci impartialité du ñu mën a seetaan tey état war a nekk ci ginnaaw. di instrumentaliser justice parce que loolu la ñuy bañ la ca des tey mooy li nga xam ne tey mooy tamit ax ak yàlleefu Adji Sarr bu nekkee am na loo xam ne am na tamit ñu war ko mën a teg ci yoon ñu war leen mën a àtte. mu nekkoon Cheikh Oumar Sy euh, doon indi leeral ci gis-gis ak taxawaay gi ci mbootaay gi di jàmmi réew mi am ci mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr di woo ak fàttali justice la ko war ne ab tëddaay ñeel wàllum njaaxaanaay Amnesty Sénégal la nu bëgg ñoom mooy ñu baax fukk ak juróom-ñaari soxna yu euh, Pastef yu nu teg loxo bu baax léegi te ñenn ci ñoom seen ak wér mayu leen ci anam yenu leen teewee jamono yi euh, ñu ngi ci woo kon état bu Sénégal njiit la Amnesty Seydi Gassama ak Seydou Nourou Ba. waa ci biir jigéen yooyu am na ñoo xam ne dañu am ay yoo xam ne dafa laaj ñu ñu ñu ñu jël seen i garab ñu jël seen def seen régime am na ñu xam ne ay opéré récent lañu eh, téye leen ci biir euh, police euh, n'est-ce pas pendant ñeenti fan je crois que loolu dafa rafetul ah ndax li ñu doon def rek mooy ñaxtu sànni ñu xeer saaga ñu xeexuñu mais ñooñu police mënoon nañu dispersé nañ ñibbi waaye ñu téye leen eh, bugg leen toroxal bugg leen humilier bugg leen maanaam intimider je crois que loolu état démocratique war ko def euh, en tout cas mënuñu bàyyi ñoom dàmbooj ak yeneen ba pare ñu téye femmes yooyu ci biir jigéen yooyu ci biir kaso bi je crois que ñu ngi interpellé directement Macky di ko wax mu wax ak procureur Serigne Bassirou Gueye na Macky wax Serigne procureur Serigne Bassirou Gueye ay abus li muy def ce sont des abus l'acceptera pas eh lépp loo xam ne daal la jigéen yooyu ci biir kaso rek n'est-ce pas Macky Sall ak justice am ministre euh, ak Serigne parce qu'encore une fois amul benn état démocratique boo xam ne da nga génn taxaw ci biir ci biti rek ñu jàppale dugg la ci. Seydi Gassama ba tey ci mbiram président Ousmane Sonko bu PASTEF levé immunité parlementaire am fukk ak juróom-ñeenti député opposition bi ñoom jokkoo ci ak conseil constitutionnel ak niilal la ñu bëgg ndax dañoo ne toppin wi jaarul ci yoon seen gis-gis yooyu fukk ak juróom-ñeenti député opposition bu Sénégal Amadou Sabax Ba. fukk ak juróom-ñeenti député yu bokk ci treizième législature bi ñoo jël bataaxal jébbal ko président ak membre yu conseil constitutionnel mu soxal anam yi nga xam ne ne moom la ñu muuree mbalaanu kiirlaay député bi di Ousmane Sonko ñu koy tudd ci mbiru siif ak menace de mort ci njëkk bokk na ci commission ad bi nga xam ne ne commission des lois bu assemblée nationale moo ko proposé ci fukk ak juróom fan ci weerum février boobu les député yi bi di Ousmane Sonko ñi nga xam ne ne signé nañ boobi la bataaxal bokk na ci Aïssatou Mbodj Déthié Fall Woré Sarr Moustapha Guirassy ak Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Dièye ñoom ñooñu ñëpp ñi ngi ñaawlu anam yi nga xam ne ne noonu lañ doxalee mbir mi rawatina ñàkk sàmmoog article 52 bu assemblée nationale bi tax rek ñu mën a créer lii di commission ad hoc bi Aïssatou Sabara Mame Diarra Fam Mamadou Lamine Diallo ak ñu ñu àndal xam na nañ lu ni mel guléet muy door a am ci Sénégal maanaam dugal ab dossier judiciaire bi waxul benn yoon député boobu nu mu tudd li nga xam ne ne mooy procédure contre x day violer droit assemblée nationale waaye tamit député yi nga xam ne ne ñoo bokk ci boobile assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ba tey ñoom ñi nga xam ne ne ñoo siife boobile saisine jëmale ko ci nga xam ne ne mooy président conseil constitutionnel nee disposition résolution bu assemblée nationale bu février sàmmawul ak benn yoon intérieur bu assemblée nationale. jërëjëf Amadou Sabax Ba RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak juróom. rajo askan Sénégal di dalloo tey jii ci àllarba ji ñetti téeméeri junneeg ñaar fukk ñeenti euh, ñàkk di dose yi vaccin AstraZeneca euh, ci ndimbalal euh, kuréel gi di COVAX initiative la ci njiital organisation mondiale de la santé OMS ak alliance pour le vaccin kon ci kaw COVAX googee Sénégal dina jot trois cent vingt quatre mille doses di xaarit ay bés bi di ñëw yeneen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti junni ba tey ci ñàkk ngir kon ñi nga xamante ni ñoo ko gën a yelloo lëgum ci njëlbeenug ñàkk ñàkk gi boobaak léegi ci ci Sénégal leneen ci xibaar ñeel kenn ci doomi réew mi fare ca Maroc di GP GP mooy ñooñu nga xamante ci seen wàllu tukki dañuy la askan wi ay ay ay yóbbal ci wàllu dem ak dikk boobee am na ci nag soxna euh, su doomu Sénégal ku ca ami jafe-jafe jamono yi ca Maroc euh, dañu ko téye aéroport ndax fekk ca bagage Sinébar bu mu wëlbatiku ne euh, du moom waaye keneen ci doomu Sénégal gu ko dugal ci googu jëya nekk na daal coow jamono yi ca Sénégal yi fare Maroc sëñ Xaadim Mbay mu def dendu neen ci benn loxo bi mu yor ci benn kaasu jus photo waa ji nag dañu ko partagé loolu fii ci Maroc page bi nga xam ni fa la information bi dooree lu ëpp junni ci ay partage moom lañ fa amaleegun ci ay waxtu yu néew rek groupe whatsapp yi nga xam ne sénégalais ñoo ko seq fii ci Maroc daanaka boo demee waa ji kese lañ fay waxtaane internet yi nag li ñuy xamle moo di ni waa ji ñu ngi koy seet bu baax police mi ngi koy wër teyit dañu koy jiiñ naan moom dafa jël li nga xam ne moo di yamba def ko ci benn saak boo xam ni da ko joxoon as ndaw GP ngir mu yóbbal ko ko Ndakaaru information yi nga xam ni moom la ñu jot te conseil bu général bu Sénégal fii ci Casablanca dëggal ko ndaw soo sële moom fi ne nii mi ngi ci loxoy police waa ji nga xam ni moom la ñu jéeñ mbir mi jàpp talaata ba àllarba ci guddi kenn xamul woon moom fan la nekk cureel jamono ci communauté bi ñu bari di xamal naan ku yebu rek def ndànk xool bu baax ñiy yóbbante ak tey li ñuy yóbbu la fële nga xam ni moo di Ndakaaru ndax kat kii di Cheikh Diop moom GP la miin na loolu Ndakaaru Casablanca nee na lu mel ni léegi-léegi ñu koy faral di gis muy xamal ni du jël benn bagage boo xam ni xamul borom. même bu ma la xam bu ma la xamee sax des fois ma obligé xool parce que xam rek àdduna moom wóorul te kenn mënta ne diw mi set na wecc yow da sa jëm gëm-gëmu bopp rek ngay demee moo tax nag. dañuy obligé à chaque fois bu ñu joxee bagage ñu koy vérifier waaye nag sant yàlla ba boobu ba tey daluñu. tey noonee tamit nee na mi ngi jàppale bu baax ndaw si nga xam ni moom jàpp na ni moom victime la Khady Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. googee Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di la delloo ziar di nuyu ñëpp xaaja seen. Maroc Mbay fa la euh, sunu lionceaux yi war a euh, wutali incha allah tey ji la ñuy Ndakaaru ci kaw kan moyen de 17 ans. équipe bi na fa wéyal euh, lépp luy kon préparation ak ay match xarito seen diggante ak ay académie yu nekk foofule ca Maroc Malick Daf ak ay ndawam kon ñoom tey ci mercredi bi ci suba si nañ dalal kii di président fédération sénégalaise bu football Augustin Senghor ak ñenn ñu mu bokkal fédération bi dem rek ngir gën leen ñaax laata ñuy dem kon bokk ci jongante yooyu le ndax kan boobu le dina door le 13 mars ba le 31 mars bi ñu jëm fële ca Maroc lay doon Sénégal matcham bu njëkk lundi 15 mars lay doon bu 16h jotee digganteem ak Cameroun mi yor raaya bi gaynde yu Sénégal dinañ daje ak Mali ak waa Afrique du Sud. ci wàllu Ligue 1 bi fii ci Sénégal nag ñaari match yu nuy amal tey di match retard ci ngoon. ca stade bu Mbao fii ci Ndakaaru 16h US Gorée mooy dalal Jaraaf bu Ndakaaru euh, match retard septième journée club bu Medina bi kon mooy sixième euh, moo fukki poñ ak ñett waaye am na ñaari match yu mu war a dabu ca stade Lat Dior ca Thiès Snaps Excellence mooy dalal Casa Sport bu Ziguinchor 16h euh, match retard huitième journée Ligue 1 sénégalaise ci Ligue 1 boobule ci la Asak Ndiambour nekk ñoom nag ginnaaw bi Assane Diallo di seen gouverneur démissionné ci week-end bi passé dañ ko remplacé ki wut kuy toppoon ci moom di adjoint am euh, Matar Wade Ndour moom la ñu kon tabb mu nekk entraîneur intérimaire euh, club euh, luga bi wax ni jamono yi ñu ngi waxtaan ak yeneen technicien ngir xool nuñ leen mën a jëlee kon ñu ñëw wéyal liggéey bi ci équipe Assac Ndiambour ki yor seen kaddu di chargé de communication Cheikh Touré ñu déglu ko ak Abraham Polpoy section football bi réunir na demb pour waxtaan ginnaaw bi nga xamee ne entraîneur principal bi Assane Diallo démissionné na après match bi nga xam ne moo doxoon suñu diggante ak Teungueth FC te comme dafa xaw a jàmp tuuti parce que war nañoo football weekend prochain incha allah ñu nekk Dakar Sacré Cœur waxtaan bi li si ëppoon solo moo doon xool kenn si staff technique bi nommé ko entraîneur principal intérimaire en attendant ñuy signer le contrat ak le nouvel entraîneur si lañ jàppee ne Makhtar Wade Ndoye mi nga xam ne nekkoon na kenn si adjoint Assane Diallo moom lañ tànn def ko entraîneur principal intérimaire mu nekk entraîneur bi nga xam ne moom mooy yore équipe bi pour le moment si loolu aussi section football day rassurer supporters yi ak ñi nga xam ne dañoo bëgg njàmbur que nii ñi ngi waxtaan waxtaan bu am solo bu avancé aussi ak benn entraîneur bu am tour si réew mi. Matar mi ngi nekk entraîneur intérimaire ba bañ bañuy nommé entraîneur bu bees bi mais comme si waxtaan lañ toll donc may leen ñu ñu bañ waxee tur yi nga xam ne turu entraîneur yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal pour le moment en négociation. Cheikh Touré kon yor kaddu Assane Diambour ci dixième journée bi ñoom euh, nañ daje ak Dakar Sacré Cœur dimanche 7 mars lay doon stade Albouri ñoom Diambour ñoom ñooy onzième ci classement bu Ligue 1 sénégalaise. football beeg bitim réew yoon ci Angleterre ak Manchester City mi jege lool ndam. Citizens ñoom euh, démb dañoo daanati ñi di Wolverhampton ñeenti bal ci benn euh, Gabriel Jesus doomu Brésil algérien bi di Mahrez bokk nañu dugal seeni but bi mooy. mooy seen vingt unième victoire ñaar fukkeel victoire ak benn bu tegaloo toute compétition confondue ñoom daw Guardiola yi euh, fukki poñ ak juróom lañu ñu ëppalee Manchester United mi nekk seen ginnaaw te ñu war a dajeeg moom sax ci euh, journée bi di ñëw ci wàllum première ligue euh, laata loolu waa Manchester United boobule tey ci guddi bu vingt heures écart jotee Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté la ñuy seeti bokk kon ci vingt neuvième journée première ligue anglaise ca Italie vingt cinquième journée bu Série A démb Juventus moo daan Spezia Cristiano Ronaldo dugal na bu ci match boobu moom sax jamono yi moo wéy di nekk meilleur buteur Série A bu Italie am 20 but euh, Juventus nag euh, moom mooy troisième juróom-ñaari poñ la ko Inter Milan mi jiitu ëppale ñu jeexale ko ak Espagne ak euh, demi-finale retour Coupe du Roi FC Barcelone dina dalal 20h FC Séville ci match aller bi FC Séville moo daanoon kon ñaari bal ci dara xaja sax. jërëjëf Youssouf Bodian RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes ak benn. pour man RFM xibaar yu wér ci wàllu caada geeg Anna maa ngi leen di nuyu mbokk yi xeex body compté bi ci bépp fànn moo tax a jóg artiste bi di Lamine Sissoko jaarale ko ci singalam bu mujj mu dippee ko euh, discrimination ak koraam bi nag muy ci euh, jéem a itam yeneen euh, genre musicaux artiste bi daal dina ci waxtaan ak Aminata dien depuis Suède fu mu dëkk. mu yore xalamam Lamine Cissokho dafa woy ngir jàmm respect ak àndandoo xeet yi àndandoo boobu feeñ bu baax ci singalam bi mujjee génn di discrimination moom mi la mi ngi woy ànd ak benn guinéen benn suédoise ak benn algérienne. avec woy wile li ma ciy wax du rek euh, boddi boddi jëm ci wàllum xeet waaye boddi la woo xamante ni dafa jëm ci lépp adduna bi faw nit ñi di yaapalante di it yërëmante ndaxte loolu ñàkk bu mu fi ñàkk tax adduna bi jaxasoowee nii nit ñi ñoom ñoo yombalul dara li nga xamante ni moom mooy euh, dundin wi ba tax na lu baax sax kenn waru koo fàtte dañ ko war di fàttaliku saa su. ki nga xamante ni bokk na ci njabootu géwël fële ca Ziguinchor deful tànneef boobu ci neen. Lamine Cissokho jamono ji am na juróomi album dafa bëgg di jaxasee xalam ak yeneen xeetu musique am na ay xeetu yu bari yoo xamante ni fent naa ko jëm ci wàllu wi yenn yi maa ko inspiré woo ci jazz yenn yi ci folk nordique laa ko xalaate yenn yi nag xeetu musique ndaxte man Suède laa dëkk